Idrissa Ba maa ngi maa ngi lay fay. Idrissa Ba nga nekk analyste politique élection législative anticipée yi daañu ko amal ci 17 novembre bile naka nga gisee organisation wu élection législative yi te euh, pratiquement ay weer rek euh, la am après euh, élection présidentielle bi nga xam ni amoon nañ ko ci réew mi naka nga gisee mbir mi. élection yi lu am lu jaadu la lu ñu war a def la parce que dañ ko bind ci euh, li ñuy wax euh, un calendrier républicain euh, ñëpp xamoon nañu ko à partir de ce moment élection war na après présidentielle bu bu jeexee législative moo ci tegu après législative municipale yi mooy ñëw encore donc loolu ni ñu xam nañ ko parce que dañ ko bind lu yàgg donc présidentielle bi jàll na ñëpp xam nañ résultat yi man ci sama njàngat personnel bon euh, pour que opposition bi inverser tendance yi dana jafe jafe jafe trop moom pourquoi parce que fi mu ne nii opposition amul dañuy wax rek naan opposition di di di mais lu ñuy wax di tax ñu naan opposition réel réel amu fi opposition bu mën a sonal Diomaye ak Sonko ci élection législative yi wax fa dëgg yàlla man gis guma ko ah sama xam-xam nag peut-être li ma may ma comprendre que mooy lii ma lay wax nii rek ku mu ci xam-xam tamit mën na gis leneen loo xam ni peut-être moo kale li may analyser mais pour le moment gisaguma opposition bu forte bu ñuy wax boo xam ne bi mën na inverser tendance bi nga xam ne bi bu continuer Diomaye ak Sonko ils ont encore en majorité je ne dirais pas absolue mais ils ont une majorité relative au niveau de l'Assemblée nationale ñu gis ni Pastef euh, moom nag élection yi euh, fas yéene aussi ànd ak allié surtout ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci coalition Diomaye président Pastef bëgg dem moom rek en tout cas ku si bëgg ku leen bëgg a jàppale mën nga ñëw bootu ci Pastef mais pas coalition Diomaye président nag nga gisee aussi décision boobu. waaw xam nga loolu mooy dëggal mooy dëggal lii ma wax rek léegi parce que. bu fekkente ne woon Diomaye ak Sonko dañu dañu gis ne ñoom seen parti peut-être am na lu ciy sooxe wala amatuñu doole boo xam ne mën na leen assurer majorité parlementaire foofu la ñuy wax ne boo léegi nañu def coalition woo ñii woo kii woo kii ñu ñëw jàppale ñu pour ñu mën a dem élection mais ñoom bu ñu ne ñoom soxlawuñu kenn ñoom rek ñooy demee seen bopp loolu li ñu ciy mooy que ñu wóor nañ seen bopp am déet wóor nañ seen bopp ah ci sama gis-gis sama compréhension parce que bu ñu amoon bu ñu amul woon doole peut-être foofu la ñuy woowee coalition mais tel n'est pas le cas Sonko wax na ko ñoom léegi nag ñoom soxla ñu dimbalu kenn waaye nag ku bëgg a ñëw da ngay ñëw intégré parti bi ñëw liggéey ak ñoom. Hmm. voilà mais pour le moment soxla ñu coalition soxla ñu beneen force politique bu ñëw di leen dimbali émission yi di ñëw waaw man loolu laa ci jàngat bon sama xam-xam peut-être foofu la toll mais man daal lii laa si beneen ponk aussi ba léegi pour euh, préparer législative yi euh, gis nañu aussi alliance am na ci diggante parti démocratique sénégalais ak alliance pour la république mu nekk alliance boo xam ni askan wi xaaruñ ko woon ci diggante ñaari parti politique yi même bu fekkente ni mën nañu wax retrouvailles de la famille libérale xam nga xam nga xam nga Sénégal suñu toll nii euh, yëf si dafa jaxasoo ba nga xam ne que bon kenn kenn gisatul exactement kenn xamatul fan nga war a teg sa tànk en général am ñu xam ñoo xam ne ñoom xam nañ fu ñu teg seen parce que je parle de Sonko e de Diomaye ñoom xam nañu fi mu nekk nii fan la ñu war a teg seen tànk mais tous les autres partis de l'opposition ou machin tout xamatuñu lu ñuy def dañoo jaxasoo te man góobu ma ne fi mu nekk nii que ab que que que que PDS wala parti socialiste amati nañu doole bu ñuy wax sur le plan politique pour ne ñu ngi sonal Diomaye ak Sonko ci élection législative yi di ñëw amatuñu force boobu amatuñ ko amatuñ ko de. waaw mm-hmm. ah, ku ci ku ku mu neex nag nga nax sa bopp yaakaar naa ko bon mais mais bon euh, euh, euh, les choses sont là et un jour ils seront face à la réalité. voilà donc man bon je sais que parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye bon euh, euh non astafurlah le PDS. oui APR. Ah, mm-hmm. le le PDS APR ah, loolu la mu APR mm-hmm. boo koy xool APR en ce il n'y en a pas. Mm-hmm. Euh, ki ñu mën a tudd leaderu APR c'est Amadou Ba. Amadou Ba mu ngi ci dynamique. bon euh, Abdoulaye Wade aussi bon c'est un lieu que j'aime bien que je respecte. Mais bon, voilà, c'est le symbole qui est là, c'est le symbole qui reste. Mais du point de force politique, PDS, voilà. Amadou Ba wax nga ko léegi euh, génn ci euh, Alliance pour la République euh, teg parti bu bees ñu koy wax nouvelle responsabilité moom aussi mu daal di lëkkaloo ci élection législative yi parti socialiste ban chance la am pour législative est-ce que mën na am ay député si sa gis-gis euh, waaw waaw waaw waaw euh, dans un sens euh, dans un sens relatif très relatif on peut pas empêcher à quelqu'un d'avoir des ambitions te mën nañu wax aussi ne que bon que Amadou Ba du am mënu am député non politique du loolu parce que y a toujours cette formule là les plus forts restent machin plus bon am benn place benn député benn siège yooyu dañ ko gis ça ça peut être mais en, en valeur en valeur absolue politiquement parlant politiquement parlant Amadou Ba ak euh, Aminata Mbengue Ndiaye gisuma naka la ñuy def ñoom ñaar ba mën a inverser tendance bi nga xam ne bi ça se profile à l'horizon pour que élection législative Diomaye du ko gagné ak Sonko ko parce que amul doole bu fi taxaw bu ñu wax ne lii c'est une force politique bon là si on se réfère sur les résultats présidentiels avec 34%, euh, je ne sais pas moi. Bon, c'est peu pour avoir, voilà. parce que lay incarné kan moo ci gënoon en ce moment. Il y en a plus le PS là bon tout le monde moo fi nekk dara bon à la limite su ma gisoon sax peut-être mu dem à la rigueur et encore et encore que avec des réserves Khalifa Sall bon trois de suspension euh, voilà minimum yàlla xam. Ah, donc, euh, man, je crois que l'Europe, euh, c'est des équilibrations, c'est des soubresauts politiques que l'on peut comprendre, surtout en cette période, que les gens se recherchent, mais xamuñu exactement ce qu'ils doivent faire. Bon, c'est humain, moi je ne le reproche pas. Voilà. Idrissa beneen euh, alliance bu xaarul woon am na si diggante Déthié Fall xalifa Khalifa ante Anta Babacar Ngom ak ñeneen ak ñeneen euh, parce que Déthié Fall aussi nekkoon allié euh, bu Ousmane Sonko boo xam ni bu mu méttee dëgg mi ngi fi woon di ko jàppale tey ji mu fas yéene dem ci côté opposition bi allié wu ak PUR xalifa Sall ak ñeneen beneen jàngat bu am solo loo wax. waaw euh, xam nga man sama gis-gis mooy ko Sénégal politiciens yi dañuy yàkkamti yenn recette très pressés ils sont pas patients euh, ci politique ci su ma ci comprendre ci lu ndaw mooy que politique du aar du du lambatu ni improviser non non c'est une science il faut réfléchir il faut penser il faut définir il faut appliquer dans le futur euh, dans les cycles de temps lii mooy politique au vrai sens du mais j'ai remarqué que des gens nit ñi dañu yàkkamti parce que quand je prends l'exemple de Déthié depuis la première coalition qu'il a eu euh, qu'il a intégrée avec Sonko contre vents et marées bu jëfandu woon rek toog coalition actuellement c'est dans une autre poursuite mais ils sont pressés l'influence par-ci par-là bon machin non euh, parfois ils sont pas mis par de réelles convictions conviction la ñu am dëggantaan mais ku ci am conviction le temps euh, Déthié Maane je le voyais bien parti avec Sonko mu muñ rek ak lu mën ci am dégluwul kenn lu ci Sonko bu ko defoon je crois que tey c'est le dans une autre posture donc euh, mhm. je ne pas euh, soit quelle soit la formule qu'il va adopter ou euh, la coalition qu'il va intégrer Bon, c'est humain de tenter sa chance, d'avoir des ambitions et de les afficher. Voilà. Je ne suis pas contre. Mm -hmm. Mais voilà, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Ah, Wolof, voilà, oui. Wow. Il faut encore ambitionner, comme le maîtriser, quoi. Le bagne, le bagne, quoi, de bagne, quoi, là, en quelque sorte. Mm -hmm. Euh, kon bu ñu jógee ci kaw Déthié Fall euh, reddition des comptes ñu lancé ko teg euh, lu ñuy wax pôle judiciaire et financier tey ji ñu bari di wax ni est-ce que nekkul règlement des comptes surtout ci période électorale bi nga xam ne ñi ngi ci woo ay dignitaire u régime bu président Macky Sall Euh, reddition des comptes boobu contrôle financier contrôle judiciaire financier yooyu yëpp euh, dafa mel ni que askan bi ñoo ko demandé du sax euh, gouvernement bi ñoo koy non non mais askan wi ñoo leen ci pousse pour ñu def ko parce que les gens sont outrés ils sont abusés ils sont déçus donc ils veulent avoir vraiment dañu bëgg nañu am ay résultats ci ak yii ñuy mën yëpp ñu xam fu muy mujjee parce que tam du ñu nangu alalu réew mi ñëpp bokk ko ay nit yu tuuti ñëw sax saxe ko nit ñoo gën voilà ñi wala je sais pas jaaduwul donc à mon avis euh, li ñuy def nii dafa dafa dafa dafa méngoo ak li askan bi soxla léegi nag problème mooy est ce que li askan bi soxla ak élection yi est ce que mën nañu reporter élection yi bàyyi ba enquête yi jeex def ko wala ñu boole yëpp àndandoo defandoo ko parce que gisuma lii lu muy empêcher élection mënu ko empêcher mënu empêcher élection am waaw def leen di di contrôler xam na ni ñu koy defee man amoon na jote wala dara ak élection yi mais askan bi daal xam naa soxla nañ ko ñu xam exactement affaire yooyu ñuy wax naka la demee lu ki ñu def xam ko ci responsabilité et puis ñu war a jël ay mesures jël ay décisions di jël pour askan mën a mën a mën a mën a mën a féex mën a dal euh, seen seen yaakaar ba ñu tas ci boobu voilà man daal lii laa ko jàppee rek mais. Mhm. Euh, dernière question est-ce que tey jii ak li xew ci réew mi surtout côté Alliance pour la République est-ce que mën nañu xaar retour président Sall ci atum deux mille vingt neuf mu sampaan ndëndëm laaj réew mi est-ce que xalaat nga euh, lu ni mel lu mën a nekk la. waaw loolu moom soxna si man daan dama jàngat mooy que loolu moom xel daju ko euh, su ma mënoon conseiller président Macky Sall nag dinaa ko wax soit mu def yëf yi gor yëf yi gor mooy mu ñëw comme ñu ngi koy tuumaal mu ñëw ne askan wi nekk ñëw naa lu ngeen def ci man ma nangu ko bu ko mënul def noo fa mu nekk ah yàlla moo xam mais fi mu nekk nii ah yi ñu parce que démb fii liy wax affaire yi banjàkk yi affaire yi xale yi ñu rey yi affaire yi xale yi dugg ci géej gi yooyu yëpp boo mën a ko bu gisee ah, daf fiy def ay politique ñu nangu ko góoba ko góoba ko parce que nii dañ ko bàyyi mu ñëw fi dafay def politique encore c'est pas possible waaw xaw ma ñu koy jay wala di ko wax loolu di ko gëmloo loolu mais ñu koy naxati encore di ko pousse muy indi ay fii ci réew te Sénégal mérité wu loolu mérité ko président di ko jiitu yëpp dañu àndax ngoro àndax dal gëm yàlla ba seen mandat jeexee ñu dem toog jàpp sa jàmbur mais Macky Sall lan moo ko tere mu def loolu dan moo ko tere mu def loolu moomu Sénégal moomu di ñii simple citoyen la yoon yàlla natt ko ñu def ko ci bopp réew mi et encore que sant boromam comme génne na fi euh, ak sagom na sant yàlla te mu delloo na delloo xelam nag na delloo xelam ci yàlla xam ne réew avant moom yàlla moo sàkk réew mi avant muy moo sàkk réew mi avant Macky Sall na xam ne réew euh, yàlla du ko méttale ak doomu aadama le pays est sacré nation dafa am lu mu toll ci yàlla na xam loolu respecté loolu te mu toog jàmm jàmburam moo gën ah man de moom laa koy xelal. voilà merci man nag duma Ba ñu ngi lay remercier bu baax a baax. merci Sabine. voilà ñuy fàttali ni analyste politique nga jërëjëf ci tontu bi nga tontu suñuy laaj Idrissa Ba